sant bu baax sëriñ Abibulahi Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ca kanam eh, toftal ci jëwriñam sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ Abibu sant sëriñ Moustapha moom sëriñ Modou Fati Xari ci jataay bi jaajëfal ko bu baax moom mi nga xam ne eh, lenn ci ak njabootam ñoo fi indi lii di association bi ñuy wooye lueur d'espoir ñu sentiment bi ñu yëg sentiment sant yàlla la ndax Touba kanam bi koy doog yëkkati li sëñ Abibu waxoon ca woote ba mooy dañ ci woo ñi am alal ñi am xam-xam ak ñi am man-man woote boobu nag dañuy jàpp ne lii ci wuy si googu la bokk eh, ñeneen ñi ñëw tamit ak ñi jot a ñëw ñëpp ci biir liggéey boobu la dugg si Touba ca kanam di kuréel goo xam ne eh, yéeneem tur wi lay tekki mooy Touba ca kanam lépp luy jëmale Touba ca kanam da ciy dugal loxoom ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi ciy dox ay jéego yu am am solo ndax fi mu ne ñoo ngi ci juróom-benneelu poste de santé yu ñu tabax ay poste de santé moderne la def yoo xam ne eh, yu méngoo jamono la ci wàllu équipement bi nag mooy matériel yi nga xam ne ñoo war nekk ci poste bi euh, yu ko euh, yu ko jumtuwaay ay lay doon yoo xam ne suñu bërëbu fajukaay yëpp a koy soxla te dafa war a méngoo ak bâtiment yi ni ñu ko tabaxee mu nekk yu moderne yoo xam ne fi jamono tool dina méngoo moom kon ci turu sëriñ bi ci la ñuy waxee ne ñi ngi sant bu baax a baax association bii di association Lueur d'Espoir di rafet lu jëf juré ji nga xam ne def nañ ko mu toll ci valeur u 27 millions 50 mille euh, seen seen kilifa di sëriñ Falilou Sarr basé wu ca Montréal ak suñ secrétaire général bi ñu àndal di sëriñ Mamadou Diagne Sarr ak soxnaam soxna Bintu Mbacké eh, di doom ci sëriñ Moustapha mi ñu àndal sant sëriñ Moustapha mi nga xam ne moom la ñu àndal te bi ñu ñëwee ñu jaare ci mbir mu nekk ni mu war a jaare ndax mbir mu nekk dafay jaar ci buntu buntu bi yoon wi mooy sëriñ Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér sëñ Moustapha dafa ànd ak sëñ Abi bu ñu dem directement ci sëñ Mountakha jébbal ko bagage yi leeralal ko ko ba noppi nag doog a ñëw fii buntu siège Touba ca kanam pour def cérémonie de réception bi bu njëkk dañ daa wax murid yi ak yanu yanu ko saako ñoo yem mujj ñu dem ba naan murid yeeg ñëpp yem léegi passé na foofu xam nga fu ne murid yi gënuñu fi kenn kon noo ngi avancé delluwut gannaaw man nag sant gi ma sant mooy lii xeebu na lool ci liñ fi fay séenee indi ndax lafa nekk ñu jóg ko fas naa yéene bu fekkee sama bakkan bii mi ngi mi ngi dund lépp dana ñëw Touba te bu dikkee ci loxob sëñ bi mi laa koy teg lañ jot a jox hôpital yi nag réccu naa ko ndax joxe nañ lu mat juróom fukki million lii door a yegg si ci samay loxo keroog ba mu ma ko joxee laa ko ne lii du ma ko jariñoo de Touba direct mu ne ma ah kon de loolu man ci sant lool ma ne ko loolu mooy am mu ne kon ñoom itam fas nañ yéene lépp lu ñu yorati Touba lañ ko indi ñu ngi nii ñoo ko wax bu fekkee waxuñu ko samay doom lañ mën nañ koo daal di kon man am naa cant lool ñaareel ba mooy tubaa ca kanam murit bu ne war na cee bokk murit bu ne alalam war na cee def ndax nun kat sëriñ Touba dong lan am wallaahi ku ciy dund am nga am nga bëgg-bëgg waaye ku ci dugg ci bàmmeel xam sëriñ Touba dong nga fa nekk keneen du fa nekk man maa la wax lool sëriñ Touba moomee fa nekk nag war na noo ji ci moom dara loo xam ne bu demee moom la ñuy góob ku jiwut dara doo góob dara mbir mi nag du mbirum caaxaan mbirum sëñ Tuubaa la fokk dañuy fokk dañuy fab sunu ñaq di ci def di ci def suñ doole di ci def sunuy xalaat gis nga nit ñi moom sëriñ Tuubaa doo nga lañ bëgg ku woote dara jëm sëriñ Tuubaa nañ la topp boo dëggalee loo soxla ñu jox la ko boo caaxaanee ñu wàññi ko Tuubaa ca kanam nag moo fi mujj judd ci association maa ngi fàttaliku 1959 ba ñuy créé FACT am na ci ñu bari fàttali ko fédération artistique et culturelle de Touba daaru daaru xudóos la sees bi dekkoon boobeeg tey jii lu fi xew ci mbirum association yëg naa ko daa nekk bu dee lu jëm lu jëm kër waaye yu ci bare dañuy dem ba mu yàgg dutoo leen dégg Touba ca kanam nag moom bi mu tàmbalee yàggut waaye résultat am ñëpp gis nañ ko ku jaar ci mbedd yi mën nga koo gis ku dem ci hôpitaux yi man nga koo gis ku dem ci euh, ñiñ confiné ci kër yi mën nga koo jis ku dem ci corona bi mën nga koo gis ku dem foo dem da nga gis résultat wu Touba ca kanam kon Touba ca kanam gàccaa ngaalaama murid yi nag ku leen woo ci sëñ tubaa ñu ñëw sëñ tubaa dong lañ bëgg bu doon 10 milliards buñ ko soxlaa fi saa si léegi day ñëw ndax sëñ bi liggéey na ko ba pare